ci sa tur sant di la ñaanal yàlla wér ak texe mu ngi am kontaante ak mbégte lu rëy pour ñu wax ak yéen fii ci jotaay bi fii ci Mahad El Hadj Abdoulaye Niass al islami ah, ci mbir mi nga xam ni dafa yitteel école bi yitteel njabootu baay gépp muy doom muy sët muy taalibe muy xarit muy mbokk ñëpp la yitteel parce que Baye bi mu fi nekkee ñaar ko gënoon yitteel muy jumaam ji ay école bàyyam bii nga xam ne nee fi la jàngee ba génn fi kon yooyu la képp koy doomi Baye wala ngay taalibe Baye wala ngay jegewaale Baye war na la yitteel ba tax na tey ñu war cee waxtaan ak mbokki taalibe yi waxtaan ak li ko waral lenn rek la mooy dafa am ndeysaan mbokki taalibe yoo xam ne yu baax yu yàlla baaxal ñu bëgg bàyyi bëggeel ak cofeel goo xam ne am na fa mu commencé amul fa mu yem ñu Cheikh Mounhamina Ibrahima Niass bi ko fi yàlla indee mu am lu mu nu mu gisee école bi avant muy nekk directeur ku bëgg ku mës a bëgg école bi yëkkatiku la ku mës bëgg école bi nekk ci kanam la ci côté yëpp côté tabax bi côté jàngalekat yi côté élèves yi moom daal xelam yëpp bëgg-bëggam yëpp mooy yëkkati école bi ba nga xam ni dina yelloog place bi nga xam ni moom la war a nekk loolu la mës di wax loolu di mës a dox loolu di mës bëgg a def bu ko yàlla defee na mu nekk directeur loolu lu mooy point bi nga xam ne moom la njëkk yëkkati mu ni kon dina yaatal xëy na sax mënoon na moom si boppam rek am nu mu ko doxalee am nu mu ko defee su boobaa itam dina sotti ndaxte bàyyee koy jàppale waaye ngir yenn taalibe yi mbaax e moo tax mu bëgg leen cee dugal xajal ci ñëpp ubbi bunt bi mu yaatu mu day créer ay parrainage am ñoo xam ni dañ leen di tànn ci taalibe Baay ci njabootu Baay yi ñu am cër ci école bi nga xam ne li leen yàlla wërsëgal dinañ ko mën a jëfe ci école bi ci élèves yi ci tabax yi ci lépp lu yëkkati école bi ci biir loolu nag son am na taalibe yoo xam ne wax dëgg yàlla am nañ yitte goo xam ne ngi dox nañu ba ñëw ci école bi diis nañ ni mu dox gis nañ ni mu ni mu mel gis nañ fi mu toll waaye eh, tey nag incha allahu dina leen jox eh, kanamu école bi mi nga xam ni noonu la taxawee ci côté yëpp li mu am ci li manqué duñ leen ko nëbb dañ leen ko wax waaye itam li mu am ci li nga xam ni yàlla nan na ko ñi fi jaar ci directeur yi def nañ ko dinañ leen ko wane waxtaan waxtaanee ko kon Oustaz Ibrahima Ndiaye su toogee dina leen biral loolu yëpp incha allahu ba ngeen xam ni xëy na am na lu manqué waaye itam wax dëgg yàlla am na lu fi ne loo xam ne mën nag ñu see jàppagum waaye nag du tere ñu ngi soxla képp ku yàlla mën loolu comme ni ñu ko waxoon ci njëlbeen nga ñëw ci école baay bi bokk ak ñun ñu pousse ko mu ci kanam ba am kanam gi nga xam ne mooy yelloo ak moom moom daal la ñu ñaan ñëpp yàlla yàlla dimbale ñëpp yàlla yàlla jàppale ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi barke Baay ñu ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man unzila alay waqul rabbi zidni ilman تعليما مستمرا وعلى آله وصحبه الذين أظلونا بذل الإيمان والإحسان أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي ينوي ستان فنو من النك في àdduna bi ñu ngi leen di السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته rahmatullahi taala di ndokkeel tamit xalifa bi cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass di ndokkeel tamit al imam cheikh Ali Cissé di ndokkeel tamit cheikh Mouhamadul Mahi Sida Ali Cissé annaatak rasmi waane di ndokkeel ki nga xam ne tamit mooy cheikh Mouhamad Mounhamina Ibrahim Niass mi nga xam ne ci turam la ñuy waxee mu nekk directeur général bu institut islamique Alhaji Abdoulaye Niass nekk fii nag di tatagal ci maaxat bi di war a waxtaan jullit ñëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi mooy institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass nga xam ne Cheikh Ibrahima moo ko sosoon waane nag du lu bees ndax continuité la ci école maam El Hadj Abdoulaye bu mag boobu mooy maam El Hadj Abdoulaye Niass majalis la doon def maam Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee dafa daal di moderniser majalis boobu mu dëppale kook jamono pour xemmeem loo ndaw ñi pour ñu jàng mu nekk ci taxawal ko moom Cheikh Ibrahima tabax bi tabax bureau jël magasin bu nga xam ne ci këram la waroon nekk mu indi ko daal di créer lu ñu tuddee franco arabe moderne bi nga xam ne moo xew tey kon njëkk na koo xalaat ku amoon gis-gis la bu sori ci njàngam arab mu nekk école boo xam ne bi tam yàgg naa samp ci Sénégal depuis 1970 bi nga xam ne Cheikh Ibrahima sos na ko inauguré ko officiellement bari na ay foyer yu bari yoo xam ne ci ay doomi jullit ñu bari ci Afrique ak Sénégal fii lañ formé woo fii lañ leen defaree. ñoom tam buñ def bañ defaroo ba pare génn dem ci yeneen réew jàng defar yenn école kon école bi noonu la dundoo euh, mu nekk loo xam ne li tamit misaal muy dund la bu muy dundal la ci Cheikh Ibrahim muy école bi ndax daf koo defoon yitte maanaam moom Cheikh Ibrahima dafa wax ne man bàyyiwuma ci kaw suuf alal bàyyiwuma ci kaw suuf lu dul école bi ak jumaa ji kon joxoon na ko yitte joxoon na ko gëdd defoon na ci itam kemtalaay kàttanam Cheikh Ibrahima nag wax ne école bii nag dama koo def cadeau ngir xeetu yontu yàlla Muhammad ñeel xeetu yontu yàlla Muhammad salaam maanaam abnaawul ummal islamiya seetewuma ci kii tariqe bi la bokk seetewuma kii ci masa bi la bokk waaye dama koo def rek julli doomu julli ñëpp laa ko defal noonu la doon doxee moom Cheikh Ibrahima mu góor góorlu ci ak résultat yi nga xam ne école bi jaar na ci ba tax na mu nekk benn xibla boo xam ne bii pour ñuy sàkku xam ci Afrique ak Sénégal Niger Ghana Gambie Guinée Conakry Bissau Mali Mauritanie Burkina Faso Tchad Soudan ba Côte d'Ivoire ak Burundi yu ci Afrique jóge na fa ñëw ci école bi di jàngale. My name is Toib. I come from Nigeria. Umar Guinée Conakry. My name is Zurkane Alassane and I'm from Ghana. maa ngi Ousmane Senghor dëkk Senghor geno de Osum. ngi jóge Mali. Ismi Abdallah. min Burkina Faso. Je m'appelle Tahir Ahlil Nationalité My name is Omar. I'm from America. Bonjour, je m'appelle Abdelwahid. nationalité béninoise Bonjour, je m'appelle Issa Abdallah Hijabi, ivoirien. Je m'appelle Ousmane Aboubakar nationalité nigérienne. Mon nom c'est Mohamed Sissé, burkinabé. Ismi Saleh Danso, Adar min Guinée Konak. Sunana Bukari Nias. na zone nan daga Najeriya. Alhaji Baji, Gambia, Majan Katmat Alhaji Abdullahi Nes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Binta Fall, fi Jumhuriyatul Islamiyya Sunnatan. Kon man ngaa wax ne école bi Afrique gu ndax bu bu bu yi récréation rek taxaw ci cour bi fess ko del lak bo lak ci afrique ñu tontu la yalla nu yalla fay cheikh ibrahim kon nit ki dana gis ci bopam dialecte yi nga xamne mom nga gis ci rew afrique yeb da ngay gis da ngay gis na xalé ñu koy waxante ci bir cour bi école la bo xamne bi tamit cadre arabisant yi nga xamne ñom nek ci rew mi tay di jàngale ci lycée yi ak ci primaire bi ñu ci gëna bari ci ñom ci école bi lañu génné wala ku génné ci école bi mo lañu jangal tamit ci école bi liggéey nako ci ay résultats kon école la boo xam ne bi mën nañ ko tuddee institut maire ndax maanaam ndeyu école yi loolu tax na def na ko jubluwaay boo xam ne bi muy jubluwaayu boolem réew yu nekk ci Afrique nekk jub seen jubluwaay pour ñu jàngee ci institut boobu loolu moo ko jox tur woowu nga xam ne am na ko langue arab ak culture islamique ba tax na fi ñuy toog di wax ak yéen euh, li mu am ci effectif ci ay ndong yuy jàng toll nañ ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay ndongo ci diggante góor ak jigéen ñeent fukk ci Afrique ci réew mi ak ci biti réew kon institut bi boo boolee classes yi fi nekk yëpp ëpp na plus de vingt cinq classes am na ci biir institut bi préscolaire rawda rawda woowu nag daan ci ñëw ñëw li bi Cheikh Mamadou Mahi nekk directeur mu daal ñu daal di créer rawda bi ci ay injaasaatam mu daal di koy tuddee Cheikh Mamadou Nazir mu ngi ci biir institut bi am na ñaari façon njàngin am na enseignement arabo islamique moom la ñuy tuddee classique ak franco arabe kon école bi am na franco arabe beneen wàll ga am na enseignement arabo islamique primaire ba secondaire ñooñu ñooy def li nga xam ne mooy bac arabe mooy bac état am na aussi projet université. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki taalibi bàyyi fuñ mënti nekk ci addina bi euh, ñu ngi leen di nuyu fii ci école Alxaaji Abdoulaye bi nga xam ne ni Baye moo ko sos tuddee ko baayam muy Mahat Alxaaji Abdoulaye Niass institut islamique Alxaaji Abdoulaye Niass. Euh, kii wax ak yéen ñi ko xamut mooy mun xamina doomu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu Euh, yàlla defi tamit euh, sëñ maax yi mi nga xam ne mooy xalifa bi te nekkoon ci école bi dénk ñu école bi ñu ñëw tey nag pour am beneen waxtaan boo xam ne danañ ko waxtaanaat mu jëm ci wàllu école. waaw Sidna Omar laaj boobu moom dama ci sawar que lu am solo la daana wax ne mu ne nit ku nekk fam bugg a jaar ak fam ne jaadu na mu xam ñi fa njëkk a jaar ñan lañ ak lan lañ fa def. bu ko defee moom mu soog a xam fan lay jaar ak lan la war a def école bi bàyyi moo ko sos waaye dafa dafa dafa présenté école bi ne école la boo xam daal ci gàttal man Baye Niass ci boppam fa laa jàngee mu ne ma mu ne benn autorité coloniale moo ma laaj ne ma waaw sa école bi moom autorisation bi laa bëggoon a xool mu ne ko da ngaa juum man boo ma laajee autorisation ci yeneen yi nga xam ne maa ko initié danaa la wan autorisation parce que man dama ànd ak jamono. waaye nag bii école moom man sax ci laa jàngee école bi nga jàngee nag yow kenn warul laa laaj autorisation mu ne sama école bu bàyyi la keroog nii la ko waxee mu ne man ci laa jàngee waaye bàyyi xalifa sama mag di taawu kër gi ci la jàngee euh, alhaaji Mouhamad Zeynab ci la jàngee alhaaji Babacar ci la jàngee alhaaji ma Abdou Ñang euh, ci la jàngee kon loolu loolu mooy mooy mooy école bi ci tënk am na ci détails yoo xam ne bu ma ci bëggoon a dugg dafay gudd waaye bi ko bàyyi sosee Euh, daf koo jël teg ko ci loxo Cheikh Nazir mu ne école bii mooy sama école bu baay ba bi nga xam ne moom la maamala ji daan toog ci këram di jàngale gannaaw bu mu génnee àddina doomam yëpp ku nekk jël sa wàll sos daara pour nekk prolongement wu daara jooju man ma jël sama wàll nekk prolongement wu daara jooju mais man dama dem ba jëmmi jamono ma xam ne jamono dëppook moom dafa am solo te jamono jiñ tolloon jamono jooju jamonoy diplôme la jamonoy jàng yeneen xam-xam yi la jamono yi ouverture la dem ci àddina bi mu ne looloo tax ma defar école pour ñu mën a am diplôme pour ñu mën a jóg jokkoo àddina bi mu jox ko Cheikh Nazir Cheikh Nazir nag liggéeyam mun naa koo tënk dama koy tënk rek ci ñaari accès benn bi mooy keroog bi ko bàyyi joxe école bi dafa ne dafa jox jàkkaarloog suuf suuf sii suufi àddina si joxoñ ko wax ak moom wax boo xam ne waxu mu xaw ma waxu philosophe la xaw ma waxu sufiyanke la xaw ma waxu ban façon wax la mu ne suuf yaa ngi nii man wóor na ma ne Cheikh Nazir bés dina ñëw nga war ma comme ni nga waree ñëpp mais maa ngi lay waatal ci yàlla ne balaa nga may war danaa la war mani tamit ak école du bii école rek waaye def ay école fu ne ci àddina bi wa diisal la ak ay ay ay jàkka waaye diisal la yi tamit ak ay nit ñoo xam ne ëllëg danañ mën a taxawu jàkk yooyu mën a taxawu école yooyu def na ko ndax mom bi muy ñew fekk na ñetti classe mo nekkon ci école bi euh ñi ci dess di jangé ci ron garab yi ñi ci dess di jangé par heure bu ñuy jangé ba wacc ñeneen ñi dem ñeneen ñi ñew deug de pour mëna am espace mu ñew fi euh, ci ci ci ci jamonoom tabax nañ fi lu bari euh professeur yi nga xam ne ñu ngi fiy jàngale te jógee Mauritanie té matoon ci ciosan la 32 ñu nekk ay professeur ak ay enseignant xam nga réew mo xam dana jël 32 jangalé kat ci jangalé katam yi gëna a xarañ. ci ñii di ay professeur ñi ay ñii ay enseignant mu indi leen ci beneen réew ngir ñu taxawu doomi beneen réew ba pare fay leen indemnité yi mu leen war a fay. loolu loolu loolu mbir la moo xam ne réalisation wu Cheikh Nazir la te ni mu ko réaliser mooy dem na Mauritanie wax ak président bi se dire ko ba président bi pare pour jox ko chiffre bi amut solo mais à pare près 300 millions ci jamono jooju doonu mu ne ko non non ma joxee 300 millions da nga may indil problème parce que dama koy yóbbu léegi budget école bi lekk ko ma soxlaat te du ma mën a ñëw heure bu nekk mais damaa bëgg nga soppalil ma ko ay jàngalekat yónnee ma ay jàngalekat yoo xam ne danañ ma mën a dimbale ci njàngale mi. loolu tamit yéemaat président bi mu ne moom gisut ci jamono nit koo xam dañ lay proposer xaalis bu toll noonu nga nga rejeté ko kooku mooy xam fi mu jëm mu ne kii ku jar jàppale la. ci la ko joxe professeur yooyu professeur yooyu ñëw fi dama koy gàttal foofu ak yeneen yi nga xam ne euh, Cheikh Nazir def na ko ku ne xam na ne Cheikh Nazir bi muy génne àddina mi euh, génne àddina Égypte lu ko yóbbu woon Égypte mooy dox biram mahat bi taxawal ko fa la ko yàlla moomee kon xam nga ne kooku masta toog masta masta taxaw te bàyyi seede na ko nee na nee na nit la koo xam ne moom euh, Cheikh Nazir moomu ak oustaz Braham Diop ak alxaaji Abdoulaye mu ne ñett ñi taxaw nañ ma ci école bi taxawu goo xam ne liggéey nañ ci liggéey goo xam ne liggéey bu jëgg dayal kon loolu lu leer la beneen bi ci topp nag mooy Cheikh Mahi Cheikh Mahi bi mu ñëwee euh, fekk na moom euh, boo gisee tabax yu bees yi nga gis nii yëpp mooy benn bi fond Medina bàyyi di tabax nii té muy tabax bu moderne bu rafet. benen bi moy amna na benn R plus 2 boo xam euh, man ma ngi fàttaliku bi ñu koy def sax ñaseen lañ ko défé won Hajul Misri moo ñëwoon gis wax né mom biñi tabax zaawiya bobu bu ñaseen bi bàyyi daf ci sason bayam sas bu spécial. won ko ne ko danaka yow la laa ko tek ci sa loxo ñi ci dess dañ lay dimbalé mu def ci danaka moko tabax tabax na ci lu bëri xaaj nak mu ne mom lolu nonu moko ko inspiré mu ne kon mom zaawiya bi buñ koy defaraat. wala boog initiative defar genre bi moom moo ko war a def waaye nag moom dafa jàpp ne tamit kuy liggéey ci euh, liggéey zaawiya bi te liggéeyoo mahat bi tamit ñàkk xam sa sa mission la parce que borom zaawiya bi li moom mahat la woon moom ci boppam mu initié fa oote ñu keroog Cheikh Mahi Cissé ko ay borom moom ci boppam joxe wàllam ñu bëri ñu joxe seen wàll loolu tabax nañ ci benn R plus 2 boo xam ne mi ngi nii taxaw donc ci wàllu tabax moom surtout Serigne Mahi fim mu école bi ak fim ko indi ci walu tabax lolu mom mu ngi ne fang ñepp a ngi janoog moom bépp tabax bo fi gis mu bees rek mom moko moko ci ci jamonoom la fi nekkee. so ñëwé nak ci institut bi comme ni moko ko tàmbali ba ko Cheikh Ibrahima sosee ba légui dal di jël domam Cheikh Mamadou Nazir 1967 nommé ko directeur ba 1970 mu inauguré ko mom Cheikh Ibrahima officiellement bi nga xamé ne légui yalla def na ko lu ko soob 1998. ba Cheikh Nazir làqu suñu kanam Cheikh Mamadou Mahi jëw jël école bi di ko doxal moom tamit ba 2020 daal di tabax jàkka ji ci ay ayam ci ci jamonoom la rawda bi mu tabax ko an tariqi eh, Ahmad Salam mu ñëw tam tabax li nga xam ne mooy mabna bi nga xam ne moo dendee jàkka ji nga xam ne Cheikh Ahmad Tidiane Sidi Ali Cissé imam Cheikh Tidiane la jëloon affaire bi teg ko ci loxoom al imam al akbar Cheikh Tidiane Ali Cissé taxawee tabax boobu ba mu mat moom tamit loolu ci ay indication tam la bokk ci jamono Cheikh Mamadou Mahi ba pare Cheikh Ahmad Tidiane Sidi Ali def na tamit teen boobu nga xam ne moo nekk ci bawru naa boobu Cheikh Ahmad Tidiane Sidi Ali moo ko moo ko def. am ñeneen ay borom xam ay borom alal ñu dajee bëgg defal école bi ñu dajee ñoom xaajul musri ak ñenn ci ñi nga xam ne ay taalibe yu bàyyi lañ ñu dasee ne dañuy defaat beneen tabax comme mabna bi Cheikh Ahmad Tidiane defoon muy ñu daal di jël Cheikh Mamadou Mahi Ali Cissé jox ko liggéey boobu moom itam mu defar ko ci njiitalu ñoom ñaar yëpp ci njiit ci liggéey bépp ci loxo Baye Mbaye Cissé lañ ko teg mu daal di koy defar defar bu mag. am beneen waay boo xam ne bii bëggut ku wax turam fi sabilillah la doon def Nigéria la dëkk mu du woon tàmbali woon ab R+3 ah yaakaar naa ne euh, ba mu demee ba nga xam léegi nag. yëf yi taxaw na xaliss mënut a ñëw demati mënut a jóge fond Medina bay nak ñew nak ndax seen projet école bi ci la bokkon école bi ci la bok seen projet école bi la ndax xam-xam la ak ak ak lepp lu tassale xam-xam fond bi nak ñew taxaw waxtaan ak Cheikh Mahi nga xamne ne directeur institut bi ci jamono yoyu mu ne len bala ngeen li ngeen def xamna yene bi ngeen def ci école na bari na waaye na ngeen ma eggelel tabax boobu nga xam ne mooy R plus boobu nga xam ne moom la waajoo ji tàmbali woon waa fond bi def nañ loolu tàmbali nañ ko ba alhamdulilah rabbil alamina ku fi romb rek da nga gis ne école institut islamique soppiku na ak xarxanam yaakaar naa ne loolu lu ñëpp teg seen bët la te loolu duñ ca yem ñoom dañuy continuer kon ñoom ñëpp dalee ko ci eh, indiasaat yi nga xam ne wax nañ ko ci ay ci jamono Cheikh Ahmadoul Mahi muy tabax bi nga xam ne moom la imam def ataw bi nga xam ne moom la ñu dénkoon Cheikh Mahi Cissé ak waa fond bi liñ def ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ay jigéen lañ ak ay nit ñoo xam ne ñi ngi def seeni do don léeg nga gis koo xam dafay ñëw rek indi fi don léeg dafay dafay am koo xam dafay ñëw rek defal ma defal ma defal leen nangam yooyu yëpp école baa ngi koy xam te mi ngi koy bàyyi xel su ko defee nag ànd ak nag équipe bi nga xam ne ñoo fi liggéey ci direction bi am na ñoo xam ne fanweeri at am nañ ko fi di liggéey ak muñ ak ak ak nangoo joxe seen engagement ñoom tamit ñi ngi résultat yi xew yëpp ci équipe boobu ñoo moo tax loolu am ndax boo amoo boo nekkee kilifa te amuloo staff bu la liggéeyal sa liggéey du du du kii waane alhamdulilah rabbil alamina école bi macha allah kenn yabu ko ci njàng kenn yabu ko tamit ci doxalin jàngalekat yooyu nga xam ne tamit ñoo jógee Mauritanie ak Égypte bu dee Égypte moom depuis ñuy at yi passé yëpp dafa commencé di wàññeeku kon élèves yaa ngi yokk classe yaa ngi yokk mu yokku Mauritanie tamit am na jàngale xol yoo xam ne dañoo wàññeeku ndax 17 wala nangam ci professeur 30 professeur la amoon mais léegi wàññeeku na ba ay 17 18 wala lu ko xaw a ëpp tuuti kon mu ngi wàññeeku te sax élèves yaa ngi bëgg a yokk classe yaa ngi yokku kon léegi dañ ko war a yokk su ko defee nag looloo tax nag gouvernement Sénégal nag moom. foofu lañ koy xaar comme Égypte mi ngi yónnee Mauritanie mi ngi yónnee dëgg-dëgg waroon nañoo suñu nguur waroon nañoo dimbale ndax lu toll nii maanaam ci école arab cours bi buñ génnee fees ñaari junni fees ci cours war nañ cee dugal seen loxo recruter ay jàngalekat jox ñu ay jàngale comme ni ñu koy joxee ñeneen ñi. Cheikh Mouhamad mun xamir naa nag moom bi mu ñëwee. dafa gis ne comme africain yu bare bare ay doxondem lañ ak yenn ci Sénégal yi nga xamne sen loxo jottu sen gannaaw sen parents dañu new doole wala ñi sen parents génn aduna mu indi système parrainage nga xamne kenn ku nek man nga jël ben élève diko fayal pat ben at wala groupement bu nek def lolu su ko defé lolu da nga dimbale école bi bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashraf al anbiya wa sayyid al mursalin sayyidina muhammad an nabiy al umil سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد نشرف بحضورنا إلى دولة السنغال مبعوث الأزهر علي محمد سلطان أحمد عوض الله مبعوث الأزهر الشريف من قبل جمهورية مصر العربية نشكر الخليفة الشيخ محمد الماحي الشيخ إبراهيم نياس ونشكر أيضا الخص بالذكر فضيلة الشيخ محمد منحملة المدير الحالي لمعهد الشيخ عبد الله إنياس الذي قام بمجهودات كبيرة في المعهد منذ أن أتى إليه أيضا وخاصة العلاقة الدينية بين مؤسسة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية السنغالية ليست وليدة الساعة وإنما هي من منتصف القرن الماضي فالشيخ إبراهيم نياس شيخ الإسلام بالسنغال عندما قام بزيارة إلى مصر عام 1961 وقابل خلالها الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك وكان أول زعيم أفريقي يعتلي منبر الأزهر الشريف خطيبا وقد طلب الشيخ الحج إبراهيم نياس من الرئيس عبد الناصر إرسال علماء الأزهر الشريف إلى السنغال لمعاونة السنغاليين في نشر الثقافة الإسلامية وتدريس اللغة العربية ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم تنقطع البعثة الأزهرية عن أرض السنغال وتم إرسال أول بعثة في عام 74 و 75 أيضا والحج إبراهيم نياس له من المواقف الجليلة التي لا ينساها الشعب المصري منها عندما حدثت نكسة 1967 أرسل 14 من أولاده إلى أرض مصر حتى يدافعوا عنها وما كان من الرئيس عبد الناصر إلا أن علمهم علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية ثم أرجعهم مرة أخرى إلى السنغال آه، نشكر القائمين على معهد الشيخ عبد الله انياس ايضا ونخص بالذكر جميع القائمين فضيلة الشيخ محمد بن حملة ونشكر الخليفة محمد الماحي الشيخ ابراهيم انياس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نون أكي بيغا خامن فك نانكو في شيخ نزير ديف كوفي أكي بيغا خامن فك نانكو كو موم مو ديف كوفي كون نون دانيو ورا كومانسي ناك بون جابي ني ديف نان ليب دون ديم مي دانيي جاب ني نون ديفو دارا باسكو نون نيغي سوكو ييكسي وايي لولو ني في فك نون نون دانكو ورا نو سيلمان سوف غاردي mais dañu wara taxawal ci kanamam leneen lo xamne mom la waye sax ba léegi changement amu fi parce que mun xamina newu fi Cheikh Nazir newu fi Cheikh Alaaji Cheikh Sëñ Maay newu fi baye mo fi nek ba léegi dafa am rek ay ay ay costume yu outé mais baye rek mo fi nek liggéey baye mo fi nek te liggéey baye du taxaw du jeex bismillah arrahman arrahim wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin المهداة رحمة للعالمين التعريف بمتكلم هو محمد الأمين والمحمد سالم آه، عضو البعثة التعليمية الموريتانية لمعهد الحاج عبد الله نياس بالشام كولا العلاقات التاريخية بين موريتانيا والسنغال تلك العلاقة التي تضرب أواصرها التاريخ وعلاقتها بهذه الأسرة العظيمة أسرة شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس الذي زار موريتانيا عدة مرات أولها كانت 1950 وبعد ذلك 67 و900 و1000 وبعد ذلك 73 وأتباع الشيخ في موريتانيا الذين الذين يبلغون عددا كبيرا ولهم زوايا كثيرة بعد ذلك هذا التعاون التاريخي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبر التاريخ مع الشعب السنغالي ومشايخها وخاصة أهل المدينة حيث أن البعثة الموريتانية جاءت هنا 89 وتتابعت بعد ذلك حتى اليوم ولها دورها الكبير في نشر العلم والثقافة العربية في هذا المعهد العريق الذي أسسه شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس ليجعله منارة للعلم في هذه الربوع ولنشر الثقافة الإسلامية والعربية هذا المعهد الذي تولى تسييره ابنه البار الشيخ المرحوم الشيخ محمد النذير والذي بذل جهده الكبير وضحى في سبيل نشر هذا العلم حتى وافاه الأجل المحتوم وانتقل إلى الرفيق الأعلى فخلفه الشيخ محمد الماحي إبراهيم النيس وبذل أيضا هو الآخر جهده الكبير حتى نرى المعهد في هذه الحالة الجميلة الحالة الحسنة وعندما تولى الخلافة تولى أخوه الشيخ محمد المنحمنا الشيخ إبراهيم نص إدارة هذا المعهد والذي يحمل طموحا كبيرا إن شاء الله سنرى المعهد يتقدم ويزدهر آه، إلى الأمام لا ننسى أن هذا المعهد خرج الآلاف من أبناء المسلمين من شتى أنحاء المعمورة ليس السنغال فقط وإنما بجميع البلدان من نيجيريا وغيرها فلو ذهبنا وفتشنا في هذه الفصول الموجودة لوجدنا لو أن فيها الكثير من أبناء إفريقيا وهم يدرسون مجانا فكل من جاء من من الدول الأخرى يجد التعليم المجاني والنموذجية الذي يخدم الإسلام هذه هي رسالة شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ياس الذي أوصى, بها أوصى عليها أبنائه وتركهم يعملون عليها وستظل إن شاء الله تبارك وتعالى سارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالشكر موصول منا نحن البعثة الموريتانية لأهل مدينة وعلى رأسهم الخليفة وإخوته وأيضا لا ننسى أن نشكر الحكومة السنغالية التي أيضا هي الأخرى بذلت جهود كبيرة لتوفير الأمن والاستقرار والجو المناسب لهذا التدريس ومن جانبنا فالحكومة الموريتانية المتعاقبة بذلت هي الأخرى جهود كبيرة وأيضا نشكر الرئيس الحالي الشيخ محمد الغزواني الذي بذل جهده الكبير من أجل زيادة الروابط والتعاون والثقة بين موريتانيا والسنغال وبين موريتانيا وهذه الاسره واشكركم وجزاكم الله خيرا واو بروجي يي غنا جامب سي ايكول بي دال موي ايكول موم اي باتش لا باسكو ايكول كوكو واخ داغا واخ تباخ ايكول كوكو واخ داغا واخ ا ادمنستراسيون ايكول كوكو واخ داغا واخ اي اليف اك انسيناي دونك نون لي نيك سوني بروميير بريوريتي موي بيرسونيل بيغا خا مني ньо نيك سي ايكول بي que ce soit ay enseignants que ce soit ay administrateurs nous, ñooñu une situation yi nga fekk nañ ko situation financière yi nga nañ non seulement nous ko mais nous fexé ba commencer diko progressivement nous dal di yek ci sasi ne ñoom danañ ko ne li len seigne Mahi ñun non seulement duñ ko mais dinañ commencé di ko yokk progressivement. am na ci jigéen ñi ñoo xam ne Awa Kébé oote na benn mbooloo boo xam ne li mu ci neex mooy ay jigéen ñoo ko jiite ko diriger ñoom jël nañ engagement ne ñoom toilette jigéen ñi ñoo koy defar ba mu rafet def ci ay ay ay jàppukaay def ci lu nekk. loolu ma ne leen def li ma ci neex mooy dama bëgg mu nekk modèle d'abord dugg ci école bi gis partie boo xam ne surtout bu intime boobu nga gis ne ay jigéen rek ñoo fay dugg loolu dana nekk dëppoo nag jàngale l'islam waaye tamit dana tax jigéen ñi tamit xam ne waruñoo des gannaaw. boo ko doon xool ci ci ci ci ordre normalement nit ñi ñoo war a jiitu tabax yi situation yi nit ñi moo war a jiitu nit situation yi tabax yi. parce que ku bugg a defar plan ku bugg a defar euh, nangam ku bugg defar kii boo xam ne nii dafay soppi école bi ba ku taxaw fële seen lu rafet seen lu taaru boo fi duggee yi tamit mën a toog jàng ci condition yu baax loolu baax na waaye li ko jiitu mooy ñiy jàngale. Euh, damay damay ragal rek li waa ji waxoon waa ji mu ne dafa tukki ne moom ci jàkk ji lay njëkk a dem jàkk ji nga xam ne fa la nekkoon waaye bi mu ñëwee ci jàkk ji mu ne ana noddukat ñu ne ko mu ne maa ngi nii mu ko dimbalee naa la un million ana kii lal basan yi ñu ne ko mi ngi nii mu ne dimbalee la un million ana yore rajo yi ñu ne mi ngi nii mu ne dimbalee naa la un million euh, euh, ñu ne ko imaam mu ne imaam bàyyi naa ko yàlla imaam bi jug song ko ne ko yow da nga may fonto bu ma bàyyee ak yàlla loolu laay bañ mu dal ñu ñu tabax tabax yu rafet defar lu nekk waaye bàyyi fa ay imaam yoo xam ne dañ leen di bàyyi ak yàlla loolu nag moo tax nag ñu ne biñ jukki bi nga xam ne mënta xaar moom point bi nga xam ne mënta xaar ñu jukki ko léegi mooy mooy euh, dossier parrainage ñu bugg képp kuy taalibe bàyyi képp ku yore daayira képp kuy koo xam ne nii maanaam doo sax taalibe bàyyi waaye bugg nga lu baax dimbale doomu jullit mu jàng jaral na la ko dimbale doomu miskin mu jàng jaral na la ko kooku ubbi nañ benn compte boo xam ne compte parrainage la boo xam ne képp koo xam ne bugg nga pare ne élève élève bi 60 000 francs lañ koy fayal par année bu ngeen xamee ni am na ci Sénégal ñuy fay ci ak kii ñi gën a tuutile ñiy fay ci école yi danañu fay 60 000 par mois te ñoo ñoo ci gën a tuutile kon suñu ne la 60 000 par année war ngaa xam ne loolu diine la war ngaa xam ne kër baay la ñu bugg nag loolu lan la am ñu ñu uutu ci élèves yooyu bañ mën a am condition yuñ jàngee yu normal waaye uutu ñi leen di jàngali tamit parce que ma ma ma wax leen historique bi bàyyi bi mu fi nekkee moom moo daan génnee ci xaalisam di joxe li nga xam ne moom lañ war a fay enseignants yi li ñu war a jëndee craie li ñu war a jëndee nangam ak nangam ak nangam ak bi ñu demee ba ci kanam ñu ne ko il faut ñuy laaj xale yi téeméer par pour man di jënd ay craie mu ne leen ci condition wu téeméer boobu bu mu tax ñàkk ko bu mu bu mu teree jàng kenn. loolu moom mooy initiative boobu bi fi Cheikh Nazir ñëwee ku ne xam na ne Cheikh Nazir euh, li tax bàyyi fi ay millions yu bëri bàyyi fi ay tabax bàyyi fi ay nangam mooy moom liñ ko daan jox ci addiya ak lam daan am ak yëpp bu école bi un problème daf koy jël ko ko wax nañ fi ne tamit Mahi nous, ñun loolu moom xam nañ ko am na loo xam sax ñuy wax ne waruñ ko wax mais man danaa ko wax mooy Mahi bu ma jox leen benn misaal am fi jamono dañoo ba am ñaari ñetti am problème fay këram la jaay pour li pour lijjantee ko problème école bi loolu il faut ñu wax ko man ñeme naa wax parce que témoin ci kon def nañ luñ sacrifice sacrifier seen bopp ak seen alal pour jox ko école bi jot na nag kon taalibe Baay yi yëg réalité yooyu ñu daal di jug nag ñoom i tamit dugal ci seen loxo uutu ci Baay maanaam poosu Baay boobu mu daan dem ci juma ci école bi ñu ne tey poos boobu war dagg waaye ku daan joxe dépense 1000 francs ci misaal boobu yaa ngi am benn doom wala yow kenn fi nekkoon soo demee ba am juróom fukki doom yoo xam ne ku ne tekki ne di liggéey sa dépense war naa ëpp 1000 francs di lii mooy wax ji ñu ne loolu moo jëm ci wàllu pare waaw Sénégal moom ñi ngi xaar ci loolu ñoom ñu def ko Sénégal defaguñ ko ah, Omar jërëjëf parce que bi may wax maa ngi fàtte Azhar te Azhar ñoo fi jiitu Azhar euh, depuis 1975 ba léegi ñi ngi fi yónnee ay jàngalekat ba léegi daggagut ren jii euh, jàngalekat yi ñu ngi fi bàyyi sax mi ngi wax benn yoon ne man am na jamono book bi fi Azhar ñëwee bi mu leen di gërëm daf ne am na jamono boo xam ne man kenn maa daan jàngale su ma jàngalee aan laxdar ba pare du ma ku ñi ñi ma jàngal duñu am ku leen toppal waxal leen leeralal leen tey nag dem naa ba nga xam ne yónnee nañ ma ay ay ay jàngalekat yu jógee Azhar ñu ñëw di ma dimbale ci njàngale mi kon nga déggee ci ne dimbale bàyyi ci njàngale mi la ko bàyyi tuddee kon ku dugal sa dërëm ci école bi pour école bi mën a jàng da dimbale bàyyi ci continuer continuer di jàngale te loolu lu rëyee a rëy la état bi nag ñu ngi koy xaar parce que euh, jamono bi fi Serigne mbay caam nekkee ministre ñëw nañ fi yàlla def boobu sëñ Mahi man la joxoon parole ne ma waxal bi jox naa ko rek kii boobu noonu euh, information yooyu nee naa ko 32 personnes ñu ngi fi entre professeur ak ay ay ay enseignants Mauritanie moo leen fay yónnee gàddu seen lépp daf ne sax kuñ ci jox cadeau rek moom bu ko yëgee daf lay delloo ji nga ñibbi parce que lépp lu ñu leen war a jox jox nañ leen ko. Égypte yi tamit dafa ne euh, ñi mu fi yóbbu ñu mu fi yónnee daf leen aaye sax jël cadeau ndax li ñu leen war a jox yëpp jox nañ leen ko ku ci doon jox cadeau sax da koy nëbb. wax dëgg yàlla état bi moom ba léegi ñu ngi koy xaar bind nañ ay demande waxoon nañ ko ministre bi ba mu ne loolu vraiment touché na ko ba dana ci def waaye démarche bi continue euh, àggut moom mu jógee fi mais ba léegi ñu ngi xaar état bi wax dëgg yàlla mu dimbale ñu ci euh, waxuma sax dimbale ñu waaye euh, ay doomi Sénégal parce que doomi Afrique yëpp ñu ngi fi ba ci ak nag ñu duwut africain ñëpp a ngi fiy jàng nekk sax ci internat bi lu mel noonu ay sénégalais waruñ ko initier di ci jàngal ay nit di leen ci préparer addina bi yëpp di xam ñu nekk fu nekk projet bu mel noonu ñu di ko def ba Mauritanie dugal ci loxoom Égypte dugal ci loxoom Maroc dugal na ci loxoom parce que am na jëmbi jamono boo xam ne ci jamono oustaz Baram Diop Maroc demoon na ba jëlal ñu lu war a mat six personnes yoo xam ne daf leen di indemniser par weer xaj na loolu tamit ñu ngi ñaan yàlla mu dellu si xalifa bi dig nañu ne euh, ministre bi wax na ko ne ko dana dellu si at loolu nag ñu ngi koy wax état bi pour mu xam ne ñii ay doomam lañ te lii moom la waroon te wax dëgg yàlla Mauritanien ko ci uutu Maroc uutu woon na ko ci sa euh, kii nu mu tuddati euh, wax léegi nag ñu ngi xaar moom wax dëgg yàlla moom tamit mu dugal ci loxo dama lay wax ne rek daal en tout bu ma ko résumé wax dëgg yàlla école bi am ay tabax yoo xam comme ni la ko waxee am ci loo xam ci initiative Hajjul Misri la ak Cheikh Mahi Cissé tabax nañ ko fi am ci loo xam ci initiative ay awsa yoo xam ne fi commencé woon ñu mottali ko Niass président assemblée nationale tabax na fi ab ab ab ab ab tabax fond bi ñu fi tabax tabax bo xamné vraiment tabax bu moderne la bu rafet la donc yoyu mi ngi fi waye lolu ça n'a rien à voir ak yenen li soxla yi ñu am parce que li problème école bi moy amna dama leen 2700 élèves ñofi nek donc il faut amna ci classe yo xamné ne dafa màgget waye malheureusement classe yoyu màgget moy classe yi nga xamné ne mooy cosaanu école bi classe yoyu moy classe yi nga xamné ne la baye immigré won classe yoyu moy classe yi nga xamné ne ci la baye duggu ñu jox ko créer mu bind. classe yooyu nga xam ne mooy cosaan bi classe yooyu moo am problème boo toogee jàkkaarloog jant bi buñ demee ba nawet xaj na nit ñi duñ ci mën a jàngee. waaye dafa ni dafa di li nga xam ne mooy cosaanu école bi dafa di ne mooy li bàyyi immigré woon donc barke école bi yëpp foofu la nekk foofu nag lañ wax ne moom lañ bëgg a moom lañ moo gën a urgent ci réflexion bi parce que réflexion bu mag bi ñëpp soxla dañ ko mais bii moom dañ koo soxla urgemment parce que buñ ko defut fii Euh, ñaari weer ñetti weer bu tawee dootuñ jàng loolu loolu mooy li nga xam ne moo xew ak nag problème mu parrainage bi nga xam ne wax dëgg yàlla bugg nañ taalib yëpp dugal ci seen loxo. parrainage yi nga xam ne dafay tuuti te sax parce que loolu tuuti te sax moom mën a continuer yor école. loolu nag mooy mooy mooy wax ji kon Omar ñu ngi lay dellu di gërëm di rafetlu sa taxawaay bi ngay taxaw ci dëkk bi yëpp ñu xam ko ak pay bi waaye nag école bi nga xam ne ci nga bokk waaye nag di def double rôle. yaa ngi yore sa école di ko sa sa direction di kii waaye nekk technicien boo xam ne ak euh, journaliste boo xam ne fu ne yaa ngi fay dugg di wane loolu itamit ñu ngi la ci gërëm. waaw ah, bismillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu an maulana abil abbas sayidi ahmad atijani wa radiallahu an sahibi faydatihi maulana cheikh lislam حاج ابراهيم الحاج عبد الله نياس الحاج عبد الله نياس مومغا خامني موم لا نتودي انستيتي بي موي في ني تاخاو تاي دي واخني موي انستيتي اسلاميك الحاج عبد الله نياس تي نجيتال دايركتور بي دي كيغا خامني موي فضيله الشيخ محمد بن حمينه Ibrahim Niass euh, ñun nag euh, li nga xam ne moom la ñu ci dénk mooy directeur adjoint euh, chargé des affaires informatiques ak sociales yàlla def nag comme documentaire bi ñuy defar nii suñu mudir jiitu nañu moo tax. Euh, mu yomb lool ci ñun nga xam ne dañ koy gàttal ñun dañuy em rek ci li nga xam ne moom la ñu sas muy parenage bi surtout lu jëm ci waa Jolof suñ mbokk yu baax yooyu nga xam ne lépp lu ñuy def ci pays bi kenn du leen ci jiitu ndax seen sëriñ Baay Gaaj moo doon wax ne man euh, du ma euh, ànd ak ku ragal du ma ànd ak ku nay te noonu la ko daan defee euh, sëñ daam gaaj ñëw teg tànkam ci fa mu ko tegoon léegi nag parrainage boobu lan mooy xalaat bi mooy dañu ne école bi euh, Cheikh Ibrahim dafa wax ne buñ fi dàq kenn ngir ñàkk fay yàlla def nag dëkk bi di dëkkab jaboot baay bu ootee àdduna bi yëpp ay ñëw jour région bi ñëw nañ àdduna bi ñëw nañ yaakaar sëriñ si ak kilifa yi ne ci dëkk bi ñooñu itam yaakaar école bi jël xale yooyu yónnee leen ko ñu dem ba ci lu jege huit cent personnes yoo xam ne du ñuy fay te daanaka mënuñ cee dàq kenn ngir ndigalu sëriñ bi ndax itam école bi dafa am solo bàyyi moo ñaan ne bépp xaraf bu fi nit jàng dana barke moo tax ñëpp jublu ko looloo tax itam directeur bu bees bi gis ne euh, taalibe yëpp itam dañoo war a jublu ci parrainage bi jàppale école bi ndax école élèves yoo xam ne danañ soxla banc yuñ toog soxla professeur yuñ leen fayal te ñoom mënuñoo fay dara ñooñu il faut eneen ñeneen jàpp ci ñi ci jàpp nag mooy ñi nga xam ne ñoo bokk mbir mi mooy taalibe yi bàyyi nga xam ne xam nañ ne bàyyi li mu fi bàyyi mooy jumaa ji ak euh, école bi te école bi mooy génnee ilimaan yi kon importance bi loolu rek doyoon na ci euh, man nag maa ngi ñaax samay bokk euh, di ñaanal yàlla nag directeur bu bees bi di Cheikh Mouhamadul Mounhamina Ibrahim ndax dafa ñëw ak doole wax dëgg yàlla mais nag man na ko ndax dafa nekkoon ak xalifa bi nekk ci ronam gis maat bi institut bi ak situation yi muy dund xam lépp bi mu ñëwee ñu jox ko responsabilité mu ne kon lii li koy régler mooy gannaaw ñi mënuñoo fay ñi leen amee mënuñ leen a fay kon il faut ñu def parrainage kenn ku nekk jàpp ci élève bu nekk soixante mille atam lëmm ku ko mën jël ko ba euh, mu dalee fi nga xam ne fii mooy primaire ba ba muy am bac euh, euh, daayira bu ci nekk itam lu man def ko comme ñi ma tudd léegi muy Mbacke gaaj moomu daayira senelek ñoom jël nañ responsabilité ci ay at di ne ay élèves yoo xam ne ñoo leen di fayal at mu jot loolu nag lañ bugg a yaatal may gërëmaat sëñ Dame Gaaj mi nga xam ne moo xalifa ba gannaaw buñ jokkook moom mu joxe ndigal euh, ñoom ñëpp ñu daje réunion ba jël niñ koy defee te loolu ama sikki ne Mbàkke dana leen ko jotal di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko te barke liggéeyab sëriñ itam képp ku ci def sa dërëm euh, nekk di loo xam ne yaa ngi ko teg ci loxo Cheikh Ibrahim mi waxoon Seydi Aliou ne waxal taalibe yi ne leen nañ góorgóorlu ci liggéeyal buñ demee ba ca fa nga xam ne mooy jëmukaay ba képp koo xam ne defutoon bu mbir yëpp nekkee suma loxo ku defutoon keroog da nga ko rëccu ñi ngi ñaan yàlla yàlla buñ bokk ci ñuy rëccu di gërëm xalifa bi fadilatu cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass nga xam ne léegi léegi rek la agsi jóge ko Nigeria ci tukki mu am solo ma ne ko adduna bi yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñoom nga demoon taalibe yi kontaan nañ mais ñi la doon seetaan ñëpp kontaan nañ benn waaye nag bu am xorom dafa am loo xam ne yaakaar naa ne borom caméra bi dana ci d'accord ndax de benn benn jour bu dugalee benn bal ci Europe télévision yi Sénégal ak média bi yëpp kenn dootu noppi benn musicien bu amee benn ndam wala ñu jox ko benn dara. Cheikh Ibrahim dugal biit yoo xam ne ci niveau international li ko dalee Nigeria ba ker ba Karachi ba Pakistan te doo ko seen ci benn chaîne lu mooy da ngaa borom neexal ko fay ko te ñoo bokk shein yi loolu itam lu doy waar la ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal ndax moo ñu tànnal directeur bii nga xam ne moo ñëw ak doole moom itam mu dooleel ko équipe bi mu fi fekk ñoom itam ñu taxaw ànd ak moom kon ñun ñëpp taalibe yi ak direction beeg mudir ak xalifa bi yëpp. كون مات بانغوك ني اندي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى بمضاعفه المنحه منحة الطلابية الذين يدرسون في الأزهر إلى أربعون طالب من السنغال فقط إن شاء الله سوف يكون هناك اختبارات في هذا العام وسيمنح أربعون منكم ويسافرون إلى مصر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yoon wi lan la ñëw indi tànk yi nga xam ne moom la fi bàyyi indi woon waa Azhar mooy ne dafa ñëw moom euh, Cheikh Atiya indi mbégte mbégte mi mooy lan mooy ne bourse yi ñu waroon a jox Sénégal yokk nañ ko ba mu dem ci 40 ndax daaw corona bi moo tax ñi waroon a dem demuñ ñi waroon dem daaw ak ren yëpp boole nañ leen muy quarante bourse yoo xam ne Sénégal yëpp ñoo ci njogante ji ci ambassade ba ku ci am ndam ya nga dem Égypte mottali ci sa njàng ñaareel bi nee na institut islamique El Hadj Abdoulaye nga xam ne moo njëkk am jàngalekat yu jóge ko Égypte fii ci ci ci Sénégal jóge ko Azhar ñooñu buñ demee ba nga xam ne dafa néew bañ di ko jàmbat mu ne njàmbat loolu jeex na dana yokk mboolem taxasusaat yi mboolem jàngalekat yi ak taxasusaat yi dana leen yokk ci at miy ñëw ba nga xam ne classe boo dugg da fa fekk égyptien buy jàngale taxasusaat bu nekk loolu nag. dafa nekk di loo xam ne mbégte lu rëy la ci mahad bi ci njiital ki nga xam ne kii mooy cheikhul mahad ak ki nga xam ne mooy directeur bi cheikh Mouhamadul Mounhamina Ibrahim ak mboolem aadaal idaara yi nga xam ne ñoo fi nekk. man Adama Diakhaté. Adama ban. maa ngi dëkk jógee dëkk bu ñuy wax Gomoon. ci internat bi laa dëkk man am naa fi ren ñeenti at. ah ñu fi de yi am na dañuy jëlee comme ça wàllum lekk bi su nekkee lekk bi am na kër yi comme ça say kër sëñ dañuy jël foofu ay bool. yenn kër sëriñ tamit am am naa ñi indi ay bool waaye nag taxut koo bari noonu yenn saa yi mu bari waaye nag yenn saa yi mu xaw a manqué daal waaye bu ne internat bi yaatu na ba léegi comme sa am na yeneen Guinée yoo xam ne ñoo nañ internat lañ bokk waaye nekkuñu fii facilement am na nekk yeneen kër yi kër Bukaar ak yeneen yeneen loolu sax loolu boo ko bëggee xam sax am na benn jamia buñ fi sos comme jamia boobu par mari lañu ñuy def par par par benn benn réunion chaque mardi heure boo ñëwee heure boobu da nga gis ñoo xam ne ay Guinéen lañ ak ñeneen ak ñeneen ñoo ñëpp ñu ngi bokk ci internat bi waaye nag fi nga xam ne ñun ñoo fi nekk dem ka dem nañ ay lu a tolloog ay ay 26 samay mbokk élèves yu am nañ fi ah, ñaar ñetti néeg yu mag lañ fi am ak benn pentre bu ndaw ñu ñoo ñoo ci nekk bi soo nekkoon comme nga xam ne ñu nga xamante ni sun tëdduwaay dana gën a mun a baax encore tamit ñun fii daanaka lu bari mënaluñ ko suñ bopp ñun suñ néegi tamit nga gis ñu ngi nii mu toll ni buñ fi nekkee ba nawet bi xaw a jot sax ay buy taw yàlla bi buy taw nga gis muy xobbee ko di daanu te wóorul mu toll loolu ñu ngi jongomante même ci année bi passée sax bi ñuy def examen am na heure daanaka dañ doon mujj di daw di fanaan ci biti te loolu yëpp nekkul lu gën mbokk élèves ma leen di wax rek ñu góorgóorlu ñun ñëpp te takkante doon benn dañu xam ne xam-xam moo ñu fi indi ñi nekk fii di sonn tamit nañ comme que li ñuy def yëpp suñ temps bi ñuy perte fii yëpp nañ def si fulla si li ñuy njàng nam xam ñu jéem ko luñ xamut ñu dem laajte ji ko te ñun suñu biir ñuy dimbalante ñu xam ne ñun ñëpp benn la ñu takkoo doon benn ndax doon benn ba léegi internat baa fi da ngay gis ñoo xam ne dañuy jógee fu nekk ci ay réew amuñ fu ñu lekkee école bi ma leen yore muy joxe muy jël alalam di ci def Cheikh Mahi itam def na loolu jël alalam di def Cheikh Mahi itam bi mu ñëwee dafa wax ne kër yi nga xam na ne dañoo wër école bi nekk ay taalibe ñoom ñëpp sas na leen ku nekk jël bool andi ci école bi pour internat bi Cheikh Ahmad Tidiane euh, alxalif rahimahullah moom itam daan na taxawu ci went internat bi di jël ñoo xam ne ñi moo leen di parrainage bi moom da ko dundaloon moom Cheikh Ahmad Tidiane bépp doomu aadama boo xam ne bi dafa nekk ci këram rek bu dee 40 personnes wala lu mu mënti doon dana yëkkati seen xaalis jox ko waa école bi boole ko ndimbal yi mu daan def naka noonu xulafaa yi nga xam ne ñoo ko jiitoon alaaji Abdoulaye alaaji Ahmad ñoom ñëpp daan nañ taxaw école bi ci seen kéemtalaay kattan naka noonu tamit imam Cheikh am ci bi dem wax ko ko dana ci taxaw lu mu laaj mu def ko Cheikh naka noonu ma Cheikh Mahi Cissé naka noonu tam Baba Lamine ak mboolem doomu bàyyi bu ma lemee ñoom ñëpp kenn ku nekk ak bu ñu lemee tàllale école bi li école bee soxla rek dañ ciy def sa ndimbal Serigne Mamoun moom dafa ñëw indi équipe sàll Sall entrepreneur sàll moo ko jiite woon mu ne ko xoolal ma école bi tabax yi ak miir yi réflexion ñu ne ko indi bureau yi bureau yi ñu toog nii yu bëree bëri ak euh, yëpp ak ay ordinateur euh, euh, defoon na joxoon na ko école bi naka noonu tamit def na école bi ay ndimbal yu bëri boo xam ne tey wax dëgg yàlla pentiraat école bi yëpp ba mu jeex seen sëriñ Mamoun moom itam def na loolu naka noonu Moustapha Niass jox nañu ay ñaari yoon ndimbal yoo xam ne yegg si na ci école bi ci jamono Cheikh Mamadou Mahi kon système daal mu ngi fi eh, pour mu gën a yokk mbir yi gën koo yëwanal waane école bi ci boppam eh, mi ngi sant yàlla am na lu manqué nag waane moom fokk nag moo tax sëriñ ma sëriñ Mouhamad Mouhamad na indi système parrainage bi pour manqué manqué yoo xam ne moom lañu war a def ci yokk bi nga xam ne école banque yokk ci ay charge loolu mën ko couvrir kon ñu ngi koy gërëm di ñaan yàlla na ko nit ñi déggee noonu képp koo xam ne kii mas na cee def sa ndimbal école bi gis na ko yàlla gis na ko euh, kon nag dañ koo war a jëmee ci kanam rek ci école bi moo indi système parrainage bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah wa